tey li xew fii lan la exactement waaw mun na musa Moussa Pataaw lañ ma gën a xamee nag Moussa Ndiaye la mais Moussa Pataaw lañ ma gën dañu am benn xew-xew bu tiis bu ñu dal sànq damay nekk sama place di jaay ba dix neuf heures écart sama frère bi oo ne ma anta dañ ko rey ma ne ko lay wax nii mu ne ma léegi la nii ba dix sept heures mu ngi si kër gi nag dara dalu ko woon parce que si suba jàngi na ma moom Mouhamed sama doomu ndaw ñoo àndoon jàngi wàcc na dix sept mu ngi kër ay dix sept heures et quelque yaa moo génn di pour mu sagu gis mu wër a wër wër gis ko après la laaj xale yi xale yi si koñ bi ñu ne ko am na ko ñu rey fële ñu daw ñëw fekk ko fi léegi bi muy ñëw am na benn grand bu dëkk si koñ bi fii moo ko ex moo daa dégg gis jigéen yi ñëw sama yaayam ak ak beneen wu jëm bi mu noonu ñoom ñaar ñoo ñoo ñoo ànd ko quoi bi ñu ñëw ñu tas benn grand kii na ko doomu kii moo réer moom la ñuy am na dégg naa am na xale bu ñu rey si biir ñu ñëw xool gis ko ñu rey ko rey bu ñaaw dañ ko xooj ba mu dee gémmiñ gi ak bakkan yëpp mu ngi sotti deret ñu jël ay brique ay saako teg ko si kaw après police ñëw na ak sapeur def nañ ko saab léegi dañuy xaar police scientifique ñëw def liggéeyam moom la ñuy xaar nii dix-neuf heures quart rek ñu oo wax ma ko am naa ay parce que dafa am rek ñu oo ma wax ma ko ma taal sama oto jaar police fekk commandant bi génn ma oo ko mu ne ma demal ñu ngi ñëw léegi loolu duñ ko xaar après rek la yebal ay élément ñu ñëw jël seen oto ñëw bu ñëwee ñu xool ñu ne léegi dañ xaar sapeur ñoom sapeur ñoom après commandant bi ñëw na ak yeneen élément yi def nañ ko saaf gis nañ dañ ko rey quoi xale bi dundatu ñun jóge nañu si seen kër famille bi dox ba fii mais li ñu dox ëpp na 500 mètres. waaw soo demee xale a a <laughs> ko waxee noonu a wax yi nan la mën a jaayoo noonu te fii dafa soreyante di si côté kër gi. lan moo ko wax yaayam loolu tam jaaxal trop. lii nii bu lay a am. mu ngi soog a am fii moom lii moom ñu koy soog a dégg képp danañ dégg ay bio rek yooyu noonu mais rey nii moom ñu ngi koy soog a dégg moom mais fii ay pratiquement ay ay ay agression yooyu noonu lu bëri lu bëri lu bëri loo toog une semaine déggloo ku ñëw ne la dama yoroon sama téléphone ñu këf ko parce que benn femme rek barki day maa ko jaay benn téléphone. nee dafa yor téléphone am di lire vocal booy firnde la ak na booy dañuy laakante dañu gàtt ñu këf téléphone am pour moom dafay tooñ mu naa indi sama téléphone indi sama téléphone mu du benn yoon du ñaari yoon moom di moom yàgg nañ ko fi a mën parce que am na ko ñoo xam ne dafa lëndëm trop fulla nañ trop waaw li ñu mën a jàppale moom barki bu rek lu matul une semaine nañ ci kër gi foofu sama jarbaar bu dëkk si kër gi foofu ñu yegg si kaw dijj fenêtre am xaalis mu dencoon foof cent mille ñu jël ko foofu la foofu la njëkkee sécurité bi moom des na fii trop ñu ngi wax ay waaw parce que man jot ko laal nag bi ma ñëwee bëgg ko xool sabar police dañ ne ma non bàyyil bàyyil pour laal sa empreinte yooyu xam naa comme police scientifique ñu ngi koy xaar bu ñëwee moom dina si wax dara wala sabar yi doon doon nañ ko xool sans solo nañ seen gan di ko xool mais dañ ko xooj moom ren wuñ ko dañ ko xooj parce que gémmiñ gi mu ngi mu ngi génne naa ci ba léegi sept ans la woon sept ans euh, Anta Ndiaye la nii xale bu ndaw la nii bu nangoo nangoo woon jàng nag parce que moom sax suba teel fajar day yeewu yaay damay jàng yaa moo ko yóbbu suba teel bi sax